dafa kenn koo xam ne di capitaine Seydina Oumar Touré billahi wallahi wataalaahi dañ ko tooñ billahi wallahi wataalaahi dañ ko toñ liñ ko teg dara jaaduwu ci ña nekk gendarmerie xam nañ ko ñi ko defit xam nañ ko ba ma nekkee États-Unis avril mai doon fa def benn formation xam nga yàgg naa leen junj lii ma génne démb na ko bàcc Ousmane Sonko génne ko na ko bàcc mooy rapport interne bu gendarmerie bëri ñoo foogoon ne amuñu am na ñu ma doon coytu sax di wax ne wooy mais xam nga est-ce que loolu am ma bàyyi leen ci biir rek rapport baa ngi nii depuis ñett xoma juróomi weer wala juróom benn weer wala lu ko ëpp mi ngi sama loxo ma téye liir lépp ma liira ba noppi nag la am sama intime conviction lu ñuy wax yàqin na capitaine Seydina Omar Touré dañ ko tooñ rapport boobu nag gars yi dama ne bëgg ngeen connecté wu de <laughs> parce que du waxaat parce que comme démb laayet na tey ma tegaat ko ci ma koon sa damay dem après au balcon mën naa toogaat tax lu tol ni weer dootu kenn du ma dégg voilà ma nekk ci liggéey parce que yàlla xam na ne dama nekk ci liggéey bu tar tar tar nekk liggéeyu jàmbur ma war ko delloo voilà rapport bi leen Ousmane doon junj tey di wax ay benn benn dama leen koy indil pour wan leen ni ñu tooñee xale bu ndaw boo xam ne takkal nañ ko raaya bu na ba mu nekkee section de recherche ndax liggéey bu mucc ayib enquête yu gën a garaaw moom lañ ko doon jox te li may wax dama leen di liiral tekkil leen ci wolof pour ñu déggul tubaab pour ngeen xam ne dañ ko tooñ soutien de famille xale bu ndaw ñum jànganoog ñëpp respecté ko mu nekk section de recherche dafa def liggéey bu mucc ayib enquête bu gën a lëj moom lañ ko confier Bati Plus Bougazelli euh, américain ba ñu reyoon Kaolack Euh, nigériens yi dañ pirater système orange dëkkoon fii def naa wakam yépp mu def ci liggéey bu mucc ayib ba au commandement de la gendarmerie takkal ko ci raaya du benn yoon du ñaari yoon ñu ñëw jox ko plainte bu viol mu def ci liggéeyam ñu sonal ko ci di ko topp comme ñun ñu ñëpp ñun on s'en fout foog ngeen xam ne lan moo indi enquête interne bi ci biir gendarmerie enquête interne bi lu ko indi ci biir gendarmerie lenn la capitaine Touré ba mu génnee posté won ci page Facebook am wax sa vie est en danger yéen donc koy fàttaliku ba dem ñu wax ne Touba la dem ak yooyu mu ñëw def interview ak Ahmed Aitara, Sen TV koy fàttaliku ñu ko mu ñëw ñu yóbbu ko arrêt de rigueur soixante jours LGI bu mbaaw ci diggante bi mu sàkku gis kii di général Jean Baptiste Tine mi yoroon gendarmerie ca booba toog ak général bi wax ko condition yu metti yi ñu ko téye ci biir LGI wax nag général bi lu tax mu def lu mu def loolu yëpp mi ngi ci biir dinaa ñëw wax expliquer leen liiral leen ko damay liir wax leen lu tax mu wax ko Jean Baptiste mu tax mu doxalee noonu parce que duñ ko bëggoon a boom dañ ko bëggoon a rey taqal ko ci ay mbir yoo xam ne laalewu ci jegewu ci Jean Baptiste ne ko li nga may wax lii dafa garaaw dafa doy waar dafa jéggi dayo lii lan la mën a xewee ci biir gendarmerie bi du tee da ngay dellu LGI m'a purgé ses 60 jours bon mat sëkk bon ko purgé ba Jean Baptiste kon patron gendarmerie ne de leen mu baax na grau bo dossier bi mo taxone mo don tax lu xew Sénégal xew fi moy nguur daanu ndax buñu démé armée musuñu ko ci mentoro buñu démé ba jël de combat palais présidentiel ba boo doon ñëw ba pale buntu café de rom ngay jàddee doo yegg buntu pale ba li yëpp nar fee xew moom fukki ak ñeent ñàkk seen bakkan moom lu garaaw a garaaw lu xew ci biir gendarmerie lii faw ma enquête ko looloo indi Jean Baptiste indi def commission d'enquête interne pour xool li ko capitaine Touré wax dëgg la am du dëgg ak ñan ñoo taqe ak ñoo laale ci biir gendarmerie ci dossier Adji Ousmane Sonko loolu indi commission d'enquête bi procès verbal baa ngi ak enquête yi ñu posé capitaine Touré posé ko question woo commandant Abdou Mbeng ma section de recherche posé ko question woo nañ capitaine Diouk posé ko question loolu yëpp nag laa bëgg benn bennal let's go gaay let's go parce que nee naa leen ñun sincèrement parler xanaa ñu ma umpale mais ñi ma xam dëgg xam na ne su ma leen dinaa rek dañuy toog xarma Synthèse du procès verbal numéro 063-4-HC-CAB du 14 avril 2021, affaire Capitaine Touré. Moi, une ko ne pat xama ma di wax na nopp dalu parce que man waxantuma duma pas. jamais ne lu ma xamul damay dem ah euh, liñ may jox ci ay information nit wax ma pare ma ne leen lii c'est personnel du ci dugg du ma ci wax ci réew mi lay wax léegi nag bugguma bugguma tàmbalee ci fee yi damay tàmbali lire lii yëpp ay extrait la lii la leen Sonko doon wan tey jii li ñu retranché ci PV bi lii la te li ma gën a neex ci kii bi commandant Abdou Mbengue moo dëggal dëggal ne PV ya ma génne woon ci dossier euh, Adji Sarr ba muy doog a am ne PV la lu <laughs> gendarmerie nationale PV numéro 0634 POHC du 14 avril 2021 analyse renseignement militaire violation du secret professionnel et de l'obligation de réserve référence fait prévue par l'article 89 décret 74 471 du traité loolu yëpp expliqué ñaari enquête kat leen désigné won parce que li am des sax lay kanam Oumar Diouf colonel la officier de police judiciaire militaire ak Crépin Arsène Sambou colonel enquête vu les articles 45 à 47, 51 de la loi 94-44 du 27 mai 1994, portant portant code de justice militaire rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées agissant en uniforme et conformément aux ordres de notre chef ñu ne ñun Omar Diouf colonel Krépin Arsène Samb tënku nañ ci article quarante cinq ba quarante ba cinquante et un bu loi quatre vingt bu vingt sept mai dix neuf cent quatre vingt quatorze portant code de justice militaire ci li ko santaane ku leen ko sant Jean Baptiste Tine le jeudi 8 avril 2021 à 10h30 caserne général Wali Fay à Dakar l'andalal, qui ki nga xamné capitaine Oumar Touré officier adjoint à la section de recherche de la gendarmerie nationale Il a du yakant dañ koy nous ci rapport cet officier a participé à une enquête portant sur un présumé viol perpétré par le député Ousmane Sonko sur la personne de mademoiselle Adji C'est s'est non seulement absenté de son service pendant cinq jours mais a également fait des sorties sur les réseaux sociaux pour divulguer certaines informations relatives à l'enquête par ailleurs, certaines sources l'accusent d'être l'auteur de la publication sur les réseaux sociaux du procès verbal établi par la section de recherche. Nous ne qui dit capitaine Seydina Omar Touré dafa bokk ci ben enquête qui xam dañuy Ousmane Sonko ne dafa violé Adji ba lolu amé nak dafa absenté lu tollu ci fan ñukoy topit na ci réseaux sociaux daf génné yenn ci information amna tibit ñenn ñukoy koy Momo ne ko procès verbal ne capitaine Seydina Omar Touré gaay ay ñoom ren maire yooyu bu nekkee ne yéen a ngi dégg bu baax ah euh, xool leen bu baax waaye euh, ne ndax connexion baa ngi baax lépp a ngi baax yéen a ngi jot lépp sama gaay yi envoyé ma message whatsapp mooy famille connexion baa ngi normal yéen a ngi dégg

ak secret professionnel alors Soda Marème maa ngi laa ziar jërëjëf ren meer léegi ñoom ñoo wax de xam nga déggoon ngeen fii ñuy wax ne capitaine Touré dafa doof capitaine Touré ànd ak xelam lii da koy ñoom ñi ko enquête ñu ne reçu et entendu dans le bureau du commandant de la Légion de gendarmerie d'intervention, sise à la caserne générale Wali Faye, le capitaine Touré avait l'air serein coopératif. Interpellé sur les faits, il reconnaissait affranchi malgré lui des obligations de réserve du secret professionnel qui s'imposent à sa personne car sa vie était en danger et qu'il n'a bénéficié d'aucune assistance de sa hiérarchie. Il soutient que sa sortie à travers les médias était motivée par sa volonté de prendre l'opinion nationale à témoin. ñu ne ba ñu dalalee capitaine Touré ku dal la gis bañ ko dalalee ñoom ku teey dal lool nangu ñu enquête ko mu leeral nee nangu na moom obligation de réserve ak yooyu yëpp ak secret professionnel amaana jéggi na ko waaye li ko sabab mooy dañoo bëggoon a jël Pakanam, moo tax mu jël sénégalais yi à témoin ñu laaj interrogé sur la divulgation du procès verbal sur les réseaux sociaux il déclare n'être mêlé à cette fuite car la version qui a fuité était exclusivement détenue par le commandant Abdou Mbeng chef de la section de recherche ses propos ont été confirmés par cet officier Pareil, vous piano piano ñuy enquête ñu ne ñu laaj capitaine Touré ne ko waaw procès verbal yi génn ci réseau sociaux yi nu mu def ba génn fa capitaine Touré na leen kàccit ma ci kàccit ma ci laa wax jegewuma laalewuma te liy firnde li mooy version bi nga xam ne gis nañ ko ci réseau sociaux yi kenn dong moo ko yoroon biir section de recherche mooy commandant Abdou Mbeng enquêteurs yi ne loolu capitaine Touré wax ban ko laajee commandant Abdou Mbengue dëggal na ko nee na version bi nga xam ne moo génn ci réseaux sociaux yi nit ñi jot ci liir ko man kese dong rek maa ko yoroon section de recherche kon buñ ci tuumaal kenn kon ñi doon wax ne capitaine Touré moo génn PV yi tooñuñu ko patron moo ne man rek Mayoron yoron version bi nga xamne dafa génn te dina ñew léegi nak xam nga buñ lay enquête ñom da ngay ñëw ñu jox la cadre. gi nga wax capitaine Touré ba mu jëlee cadre. mu le 10 mars 2021 vers 10 heures j'ai donné une interview télévisée au nom de Mohamed Aïdara de la CNTV. TV au cours de cet entretien, j'ai abordé l'affaire consécutive à la plainte pour viol suivie de menaces de mort de Mlle Adissar contre le député Ousmane Sonko. Les propos tenus à cette occasion sont une dénonciation, non une divulgation de secrets. Me trouvant en danger de mort, je devais faire cette déclaration pour préserver ma vie. Mon ne fan ci weeru à tout 2021 ba fukki waxtu joté. Sekna waxtan ak Mohamed Aydara moy Ahmed tu ca Sen TV ba ma fa demee wax naa ci wàllu plainte bi nga xam ne viol la ñu jiiñ Ousmane Sonko ci Adji Sarr waaye la ma fa wax amul lenn lu ma tudd ci biir enquête bu ñu mëne pour mu leer divulgué wu ma benn secret waaye dama wax ne ba ma defee enquête bi ba tey jii sama bakkan dafa nekk ci xottu gerte ndax dañ maa bëgg a rey lors de cette interview j'ai voulu préserver l'image de la gendarmerie nationale qui reste une institution républicaine la présente audition étant faite dans le cadre d'une procédure militaire interne je leur raterai tous les faits concernant cette affaire à laquelle j'ai participé mu ne ci interview Bobo. dafa un sam sax gendarmerie ndax kuréel républicaine bu am solo ci république kon nangu audition bi procédure militaire la dans la semaine a suivi la transmission du procès verbal concernant cette affaire j'ai rendu compte à plusieurs reprises à mon chef le chef d'escadron Abdou de la filature dont je faisais l'objet de la part d'individus non identifiés des craintes pour ma sécurité et celle des membres de ma famille aucune suite n'a été donné à cette situation. réitéré verbalement mon compte rendu, mais il m'a juste dit de ne pas m'en faire. Ben semaine procès verbalam la du du Abdou Mbeng mi nga section de recherche Nako ah patron jaxle na de mu ko lu xew mu ne ko ba ma enquête bi ba paré ñi ngi may top ay nit ñuma xamul te ci sama karange, ak sama karane njabot ta xawma lan lañ may topé bam ko ko waxé koku jëlul ben matuway pour protéger ko muna ma dem ba bind bind de manière officielle pour ki yor gendarmerie jot ci kayit gi am taxawaayam ñu ne patt pataaral kenn toppatoowuma kenn faalewuma enquête bi la de du man mu ne le dimanche 28 février alors que je me rendais Touba pour des prières j'ai suivi à la nuit de ce jour je me suis rendu à Ouest-Foire chez un marabout pour chercher des prières là également des individus ont opprimé mes déplacements xam nga ñeen ñi topp koo xam ne loolooy liggéeyam bu len fàtte captain Touré ku top topp mu xam ko loolay liggéeyam mu ne vet ñaar fik fan ak juróom-ñett ci weeru février dama dem Touba di sàkku ay ñaan jóge fa ñëw ci guddi gi ma dem west Foire di sàkku ay ñaan ci benn sëriñ ma gisit ne nit maa ay nit ñu ma xamul ñi ngi may topp di xool may teg tànk ak fu ma tegul mu ne yéen enquêteur Omar Diouf Crespin Sambou maa ngi leen wax de Le 3 mars 2021, j'ai décidé de faire un compte rendu écrit qui a été transmis le lendemain. Malgré cette correspondance, aucune mesure n'a été prise pour me protéger ou pour me rassurer. Cette situation a donc persisté et lorsque je m'en suis ouvert à nouveau à mon chef, il m'a notifié que j'étais sous écoute et que je devais faire attention. De même, il m'a notifié en même temps que je suis soupçonné de renseigner le député Ousmane Sonko, que mon nom est évoqué en haut lieu que les gens étaient en train de préparer quelque chose contre moi. Il m'a répété plusieurs fois ses mises en garde devant le capitaine Diouf mu ne ñetti fan ci weeru mars ci atum de un ma bind jox leen limay daj yépp mu ne kenn ma kenn woo sax lan la kenn protéger mu ne di ma xam sama bakkanañ ci xottu léegi ñu ma delluwaat ci Abdou Mbeng sama wax ko ko ne ko Abdou gaay yi bàyyiwun de xaw lan lañ may toppee mu ne Abdou Mbeng ci boppam moo ma yëgal ne man capitaine Touré sama téléphone ñu ngi may déglu te war naa def attention trop ndax dañuy soupçonné ne man may jox information Ousmane Sonko te nag du meng moo ko wax capitaine Touré ce tour ñu ngi koy tudd ci kat ci république fu mu gën a kawee ci république te gars yi ñi ngi waajal dara ci yow capitaine Touré ne loolu ba mu koy wax dafa am seede capitaine Diouf nga taxaw À plusieurs reprises, il m'a appelé dans son bureau pour me demander d'arrêter de parler au téléphone de l'affaire Sonko parce qu'étant suivi par la délégation de renseignement national, c'est le cas par exemple lorsque le commandant Ward de la division justice militaire m'a appelé le 3 mars 2021 pour me donner son avis sur le statut de parlementaire encore valable du député en raison de la saison du Conseil constitutionnel. Connaissant la direction de renseignement national, je sais que lorsque le téléphone d'une personne est suivi, ses contacts sont également des cibles. Donc mes parents proches ont dû peut-être être victimes des mêmes pratiques. muna du benn yoon du ñaari yoon la ma commandant Abdou Mbengue woo ci biroom ne ma bàyyil du tudd turu Sonko wala di wax waxi Sonko ndax yow direction renseignement national moo lay déglu fi mu nekk nii jox ko ci exemple na ko ba nga waxtaanee commandant wan ba nga xam ne division justice militaire ndaxte est-ce que war nañoo jox Sonko convocation am déet am déet ndax li mu nekk euh, député loolu sax dégg nañ ko capitaine Touré nan na enquêteurs yi na man nag renseignement laa de liggéey ne direction renseignement national ku mu déglu sa téléphone ñi ngay wax ak ñi ngi leen di déglu say mbokk ñu ngi leen di déglu kon nag ma jàpp ne man cible laa sama njaboot cible lañ capitaine Tournelen, de tels actes constituent une violation de mes droits constitutionnels je dénonce cette injustice qui est juste fondée sur le fait que mon lieu de naissance se trouve localisé dans la même zone que le mis en cause je suis né à Bagadadi, dans la région de Kolda ce qui est même dangereux pour la cohésion nationale mu ne enquêté. Oui, oui, waay lii yëpp ñu def dañoo salfaañe samay ak ak samay yelleef yi nga xam ne mi ngi tënku ci biir constitution bi te maa ngi koy dénoncer ndax injustice la te liñ may def nii yëpp teguñu ko fenn lu dul ma juddoo Kolda ñu foog ne am naa relation ak Ousmane Sonko waay waay ma porox loolu ci kii pël kii joola te nag euh, kii na leen loolu bu amee mooy toj nañ réew mi cohésion nationale bi yàq nañ ko mu yokku Je précise que le numéro du député Ousmane Sonko, m'a été envoyé par mon chef, le commandant Abdou Meng, le vendredi 5 février 2021 pour les besoins de la convocation du nommé J'ai essayé de l'appeler deux ou trois fois sans suite. J'ai ainsi envoyé des messages auxquels il a répondu jusqu'à la transmission de la convocation le samedi 6 février 2021 vers 12 heures. Je produis la capture d'écran des messages précités que je joins à mon audition. La conformité pour être vérifiée au journal d'appel en cas de besoin. Ce fut mon seul contact avec M. Ousmane Sonko. Mon numéro Ousmane Sonko, commandant Abdoumbeng Mokoyo, vendredi 5 février, pour me convaincre. Mon ne mu plusieurs fois je l'appelle. Ousmane Sonko Je mu yónnee ko message neleen leen li ma ko yónnee ay message ak li ma wax Ousmane Sonko message yaa ngi nii ne bàcc jël leen ngeen liir ngeen xool lan moo ci gën léegi nag vamos vamos let's go mu ne benn yoon boobu laa mës a gis Ousmane Sonko li s'agissant de l'enquête le 3 février 2021 j'ai reçu l'ordre du commandant Abdou Mbengue chef de la section de demander de mener des investigations concernant une plainte de Adji contre député le 3 février patron Abdou Mbengue moko ko enquête bi mu ne ba makoy dans ces directives quand on m'a instruit de mener l'enquête personnellement de n'en parler à personne Toutefois, vu la sensibilité de l'affaire car impliquant un opposant politique, je n'ai rendu compte au capitaine Elage Diouk, mon ancien premier adjoint avec plus d'expérience à la section de C'est ainsi qu'il m'a assisté orienté durant toute la procédure. Commandant Mbeng ba mu jox enquête bi dafa Vous faire lay jox enquête bi bu ci boole kenn mu gisee enquête bi xam lan la mu xam ne kat lii dina garaaw parce que opposant politique la te lu ne mën na cee laxasu mu ne déet xaaral ma xool ku ma gën a ancien gëpp ma ëpp expérience du capitaine Elas juk au moins luma ma ci def ma wax ko ci mu ma procédure pour ma baña a après les prises d'audition le 8 février 2021 nous avons établi ensemble un procès-verbal de synthèse qui a été transmis le même jour au parquet du tribunal grande instance hors de Dakar par le commandant de la section de recherche après les correctifs et le changement de format sous le numéro 078 du 5 février 2021. Euh, Dans la partie mention, le commandant a rajouté la phrase suivante. Précisons en outre qu'un prélèvement vaginal a été fait sur la victime pour un éventuel, test ADN. Nyop, Sidi Ahmed Mbaye Ibrahima Koulibaly ba ñu dégloo ñëpp ñu def suñu procès verbal procès verbal ah le 8 février yóbbu ko parquet bu tribunal commandant de recherche ba ñuy def changement yi mu ne ci changement yi nag commandant Mbeng moom moo yokk ci changement yi ne leen ñu yokk ci ne def nañ prélève am na lu ñu jëlee ci kanamu ndaw si muy prélèvement vaginal ngir ëllëg ak bu def test ADN le 8 février la capitaine Touré ba léegi di wax enquête le 9 février 2021 le procureur de la République a retourné le procès verbal à la section de recherche pour qu'il soit modifié en vue de fonder des poursuites contre le député incriminé notamment le procès verbal de Sentao mu ne ba ñu sur suñu procès verbal jébbal ko commandant ñu yok ci lool téwul bañ ko joxé procureur de la République daf ñu ko delloo ne modifier leen procès verbal bi ngir ma mën a topp di Ousmane Sonko Pour cela, le procureur a instruit, entre autres, de modifier la partie réservée à la réflexion des faits pour se focaliser seulement sur le paiement de 50 000 par Ousmane Sonko après la séance de massage. Ceci dans le but de retenir le délit d'association de malfaiteurs de procédure contre la nommée Ndiaye pour pouvoir atteindre M. Ousmane Sonko. Ce que le commandant fit aussitôt. Le même jour, le gendarme sec affecté au secrétariat de la section de recherche a été chargé d'acheminer à nouveau le procès verbal sous pli fermé. Le commandant a décidé, pour des raisons de sécurité, disait de garder lui seul la version définitive du procès verbal. Mon procureur, Serigne Bassirou Gueye, moo leen la modifier leen dindi leen lépp francs Ousmane Sonko fay ba ngeen dugal ay article yo xamne di ngeen meuna top ndey Ndeye Khady ba lekkaloko ko ak Ousmane Sonko pour association de malfaiteurs ak proxénétisme muna lolou loolu ko procureur waxee mu ñew ci euh, section de recherche commandant Mbeng da koo def muna bam ko defé ba pare mu jox ko ben gendarme bu nek sec bu tuddu sec bu ñu bu bu affecté secrétariat section de recherche koku jëlat procès verbal bi def ko sous pli fermé procès verbal bobu nak kenn dong moko amone ci section de recette bamu jeex muy commandant Abdou Mbeng capitaine Touré ne enquêteur de duma yam fofu am ma jox len procès verbal bi bax bi ak procès verbal bi nga xam mom lañu modifier muy procès verbal bu mujj delu Capitaine ne certes le procureur de la République et le directeur de la police judiciaire, mais ne doit pas, dans le cadre d'une affaire privée, demander à modifier un procès verbal déjà transmis pour charger une partie. Le gendarme qui exécute ces instructions viole les obligations légales et réglementaires, notamment le décret 74, tal, tel tel tel est procureur, procureur est directeur police judiciaire là amul dans le procès verbal doit modifier lélément modifier là pour moi. moment top ndax gendarme bu def lolu a ngi violer ay obligations parce que li ñu dindi ci procès verbal bi yëpp mooy li leen setal deru Ousmane Sonko. capitaine Touré di de par ailleurs je signale que deux semaines avant le dépôt d'une plainte par mademoiselle Adjissar contre le député Ousmane Sonko le général Moussa Fall commandant la gendarmerie territoriale a instruit le chef de la section de recherche le commandant Abdou Mbeng de surveiller le salon de massage et ses abords immédiats. Ceci parce qu'ils étaient informés que le mis en cause fréquentait les lieux, ce qui a été fait sans qu'aucun officier adjoint de la section de recherche ne soit impliqué. C'est ainsi que maréchal de logis, chef de l'unité, dont, dont, je tairai le nom, a été désigné pour surveiller discrètement les lieux. Mais ce n'est qu'ultérieurement au dépôt de la plainte que j'ai compris l'objet de cette surveillance. J'ose imaginer que cette mission n'avait pas pour but de protéger Ousmane Foucault. nopp dalu mu ne ñaari ayubés bés balaa wax wàllu viol général Moussa Fall boobu moo yoroon commandant de la gendarmerie territoriale daf ne Abdou Mbeng jëlal ma nit mu surveiller salon de massage kooku dem fa ñaari semaine génn nañ ko xaalim jaw rijaal démb wax nañ ko mu ne loolu bañ koy def général Moussa Fall ak Abdou Mbeng rek ci yëgoo kenn ci officier adjoint yi yëguñu ko ñu yóbbu fa maréchal de logis chef de l'unité tuddul turam waan turam feeñ na rijaal xaadim jaw moom mu def yëfu bay faal yor këlam di wër salon bi nee na ba ñu déposé plainte bi nag xam dara du réer seen biir boobu laa xam lan moo waraloon surveillance bi Seydina Omar Touré ne a ah, njottu naa ne xanaa du woon jël kaaraange Ousmane Sonko mu yokku ci en définitive douze Sénégalais ont ainsi été tués des mille non voilà paragraphe lorsque des autorités au aussi élevé dans la gendarmerie parrain de telles pratiques la sécurité de tous les citoyens est menacée c'est d'autant plus que cette institution militaire est chargée de garantir la sécurité de tous dans le respect des lois et règlements capitaine Touré enquêteur. enquêté. yi bu ñu demee ba ci gendarmerie nit ñi nga grade yu mag gendarmerie Sénégalais yi assurer sécurité ñoom ñoy dugg ci ndit ah war Nous ni ngi garantie sécurité loi ak règlement mu En définitive, 12 Sénégalais ont ainsi été tués, des milliers de personnes blessées, des centaines de millions de biens publics et privés détruits lors des manifestations consécutives à cette affaire. À mon avis, la surveillance des lieux les modifications du procès sont en défaçage avec la réglementation en vigueur. Eu égard ce qui précède, on se rend compte que le traitement de l'enquête a été partial. Au lieu de servir à assurer la sécurité des citoyens qui sont égaux devant la loi, les personnels et moyens de la gendarmerie ont été utilisés à d'autres fins. mu ne fukki sénégalais ak ñaar ñoo ñàkk sen bakkan ay nit yu il y a ay millions yàqu ci te nag ma foog ne surveiller buñ surveiller salon bi modifier buñ modifier procès verbal bi loolu yëpp méngoowul ak gendarmerie ni mu war a doxee te ci biir enquête bi liñ ci seetlu mooy enquête enquête bi dafa jubul xocc dafa féetee boor ndax modifier nañ PV bi pour charger te loolu du rôle gendarmerie nañu def ci PV ni ko war a defee jox ko procureur moo xam lu muy def moom léegi mu les individus auteurs de cette mise en scène ont voulu faire de moi leur bouc émissaire ils ont voulu m'attribuer la fuite du procès verbal dont la dernière version était détenue exclusivement par le chef de la section de recherche mu ñu def nun mig mag yooyu yëpp njombe yooyu yëpp ci biir gendarmerie nak man lañ bëggoon takal lépp nak ba ci PV bi te commandant Abdou Mbengue nga xam na PV bi mom kese dong rek moko yoron ci biir gendarmerie kon bu fiitee nañ ko ko laaj ndax ñun yoruñu PV bi Après tout ce que j'ai relaté, j'estime que ma vie était menacée. Je pense que des personnes responsables d'un tel comportement n'hésiteraient pas à tenter à ma vie pour couvrir leur forfaiture. Mune gina ci loolu que nak sama bakkan nekk ci xottu gerte ñu na parce que rek ñi am fit def li gendarmerie en plus de ma qualité de militaire je suis un officier de police judiciaire premier maillon d'une justice à laquelle je crois profondément je crois à ma liberté telle que garantie par la conscience de la République du Sénégal j'ai souvent agi ainsi à l'égard de tous les citoyens à la solliciter mes services en tant que gendarme c'est pourquoi je ne peux pas accepter que mes droits soient violés sans motif valable surtout lorsque la base de cet enfant est manifestement illégale muna man militaire la man capitaine Touré nek policier judiciaire ci slay bu njëkk ci walu justice ma gëm ko lol gëmit sama liberté bi nga xamné dafa tënku ci bir constitution bi muna du ben yon du ñaari yon ay citoyens sénégalais ñew gis sama taxaway na gendarme la ñu sakku sama service kon de mes ba gis na samay droit ñu ngi koy violer te kenn tegu ko fenn lu ci complot ak plan ci ay base yoo xam c'est illégal loolu leen bëgg ma def damay bàyyi ñu rey ma mu ne ainsi j'ai fait plusieurs publications sur ma page Facebook concernant la première que j'ai postée le dimanche 7 elle était relative à ce que je vivais concernant ma sécurité. Pour la vidéo, le reste des publications, elle n'avait aucun sens, aucun lien avec ma sécurité. Elle n'avait aucune prétention. Leur but était d'éviter que ma démission ne provoque une émotion qui conduise à plus de destruction des biens publics. J'ai volontairement été incohérent pour ne pas être compris, tout en sachant que ceux à qui je m'adressais euh, comprenaient bien mon message. Je me devais aussi de préserver mon honneur et de prouver ma sérénité dans la mesure où un médecin est venu à la section de recherche pour constater mon état de santé dans mon bureau. C'est rare

mon bureau pour nous ne Nous En somme, je réitère dans le cadre de cette affaire ma motivation de préserver ma vie face à l'inertie du commandement qui n'a donné aucune suite à mon contrat. Il s'agit également pour moi à ma manière de faire cesser les destructions de biens. Voilà illégaux qui ont une certaine sachant que de hauts responsables censés être des remparts contre l'injure ont sciemment posé des actes graves et illégaux qui ont induit en erreur certaines autorités de l'État. Cette situation a même failli déstabiliser le pays. À mon avis, les responsables ont tenu l'image de la République du Sénégal à la face du monde. Pour cela, les responsables doivent s'utiliser. Mouné, c'est ma motivation bu njëkk aar sama bopp la woon ak sama bakkan bama ma gisee ne gendarmerie wax naa waxati waxati bind bind bind bind kenn faalewu ma ma gis ni ñaa ngi dee ñi may topp man a man nii mën naa ci topp te lu gën a garaaw mooy kilifa yu mag yoo xam ne dañoo amoon yaakaar ne bu nekkee ne injustice dafa am ñoom ñoo war a taxaw xar seen tànk tubay ñoom ñoo def ay acte yu garaaw a garaaw ba dugal ay autorité ci état bi loolu dem ba yëngal réew mi ba nguur naroon a wadd ñu yàq deru Sénégal pour il faut ñu nous responsabilité yi fa ba mu ba fa ko ay question ci yi ne est-ce que avez-vous commis une faute disciplinaire non avez-vous commis une faute disciplinaire non je n'ai commis aucune faute disciplinaire

waaw waaw ñu def ko ñu ne ko euh, enquêteurs yi ñu le 8 mars ba nga fi jógee euh, absenté est-ce que loolu du faute militaire mu ne leen à mon avis la conscience d'une faute réside à l'intention de l'auteur en l'espèce j'étais surtout motivé par le besoin de prévenir ma sécurité et ma vie car je vais rendre compte à ma hiérarchie mu ne leen déedéet faute amu ci ndax ma toogoon ci biir section de recherche sax mën nañ ma fa rey te lu waral loolu mooy li xew lépp maa ngi leen koy wax te kenn jëlu ci benn matuwaay di ma topp kenn protégé wu ma ñu ne ko pensez-vous ko l'absence des mesures protectrices peut justifier est-ce que le fait que joxuñu la protection war na tax nga absenté mu ne waaw man li ma jaaxal moi, après avoir rendu compte à ma hiérarchie des craintes pour ma vie, ok, je pense être en droit de faire le net. Je me dis que nous avons eu sama karange. Taman ñu xam lepp ba dima wax moytu. Man ma def li dal sama xel. Ñu ne ko yow kan nga wax ne yow ñi lay menacer mu ne j'ai rendu compte d'abord verbalement à plusieurs reprises au commandant Abdou Meng qui est mon chef. mom la ko njëkk wax waxati ko waxati ko loolu doyul ma bind le 3 mars 2021 ba léegi kenn tontuwuma ci gendarmerie bi commandant Mbengue de amul dara lu may wax lu may wax na ma <laughs> capitaine Touré moytul moytul mu ne ca booba nag laa xam ne su ma jëlu sama metuwaay ñii mën a def njombe yii ci biir gendarmerie mën nañ maa rey ñu ne ko est-ce que yow avez-vous fait part de vos soucis sécuritaires à une autre personne de la gendarmerie mu oui j'en ai parlé au capitaine Elage Djuk, officier adjoint de la section de d'ailleurs en sa présence le commandant de la section de recette m'a à plusieurs reprises demandé de faire attention car mon nom était évoqué en haut lieu mu ne du moom rek capitaine Diouf Benen firnde moi, ci kanamu capitaine Diouf Mon commandant Mbeng Waknama Moitul. ma moytul ñu ngi lay ñu ne avez-vous informé votre chef hiérarchique avant de quitter votre lieu de travail mu non ñu ne est-ce que wax nga sa commandant Mbeng na ko da ngay génn bala ngay quitter lieu de travail mu ne déedéet non pas à mon départ en tant que tel mais j'ai dit au commandant que j'allais démissionner de la gendarmerie si les gens continuaient à me filer et que je craignais pour ma sécurité mu ne wax naa commandant Mbeng na damay démissionner bu ñu continuer di ma def lii mu ne te nag ma gis ay actes illégaux rek lañu def ci enquête bi surveiller nañ salon de massage Sweet Beauté balaa ñuy déposé plainte bi modifier nañ procès verbal bi rax ci dolli sama chef di ma wax na ma yow gars yi ñi ngi say tànk ma xam ne lii du du jàmm ñu ne ko mais yow lu tax avez-vous notamment votre dessaisissement de l'enquête lu tax yow delloowoo enquête bi mu ne leen loolu mënul nekk ndax man lii may dund maa ngi ko dund ba ma pare enquête bi ba pare du ci biir enquête bi laa ko dundee mais ba ma defee enquête bi ba pare lañ ma topp di ma bundu xatal di ma topp di ma wax leen te loolu boobu pare woon naa enquête bi te nag lenn rek laa jàppoon na moo mën a sauver sama bakkan mooy ma bind mu dem ba ci général ba général bi xam lu xew ñu ne ko fan nga nekkoon ba nga jëlee permission mu ne pour sama kaaraange tooguma woon benn place dama mobiloon maa ngi diggante Touba mbuur ak Dakar ñu ne ko euh, lu kan moo modifié PV bi mu ne la huit ba ñu defaree PV bi ba pare dafa mu PV le 9 PV bi dafa modifier ko ci niveau réflexion des faits te lolu lu illégal la waru ko def ñu ne ko kan PV bi mu mais commandant Abdou modifier PV bi ndax mom rek moko jot bureau def ci lim ci def ba pare jox ko mu ko euh, ki nga comment avez-vous su que général Moussa Fall commandant de la gendarmerie territoriale avait ordonné la surveillance discrète du salon yow nan nga def ba xam général Moussa Fall da doon surveiller mu ne ko mais lorsqu'on est officier adjoint à la section de recherche si on est présent dans l'exécution permanente du service il y a des choses qui ne peuvent pas vous échapper surtout que les éléments sont placés sous vos ordres mu leen waaye yéen nag man ma nekk ci section de recherche nekk fi adjoint enquête bi de lan moo fi mën xew mu te té nak élément yi def fois patron à dire que ce que vous avancez vous avez été rapporté par vos hommes comme je l'ai dit plus aucun officier section n'a été impliqué dans le cadre mu ne yëgaluñ ko kenn maréchal de logis lañ koy ah? ni ma def ba xam ko wax ñu surveillance salon bi kañ munuma munuma waxe date exacte yi mais man naa wax ne ay bési bés la balaa mbiru Adji Sarr di xew foofu ñu ne ko bu lay déglu dafa mel ni da ngay faral Ousmane Sonko mu ne faraluma kenn waaye lima xam mooy gendarme taxawaayam bu njëkk warul far fenn je suis impartial saisi par des citoyens égo devant la loi Ce que je veux faire ressortir à l'espèce, c'est le fait que certains responsables de la gendarmerie aient posé des actes qui laissent croire qu'ils étaient en faveur d'une partie dans une procédure privée et ces mêmes personnes ont encouragé contre moi des actes contraires à la réglementation. mu neel faraluma kenn mais li may dénoncer c'est que privée, wax ne privé la gendarmerie, ñaari nit la gendarmerie di ci faree boor loolu moo qui ci procédure bi que ci doolu ñooñu di ci faree boor ñoo wëlbatiku di ma déglu top. ma topp ñu ne ko avez-vous échangé avec monsieur Sonko mu ne oui j'ai échangé avec monsieur Sonko ba ma Abdou Mbengue joxe numéro le 5 le 6 ma envoyé ko convocation yo yónnee ko message ne ba laata loolu musuma gis Sonko musuma wax ak Sonko piège bi ñu ne ko nan nga woowee Ousmane Sonko monsieur honorable mu ne ba ba koy njëkk dama ne monsieur Sonko la ko ñëk envoyé message Tontouuma. mu ne ma fàttaliku ne ma député la ma ci honorable honorable Sonko tontouma dernier message bi nag ma yónnee ko bonjour monsieur le président parce que c'est un président l'appellation du président s'explique par le fait qu'il est un président d'un parti politique mu ñëw waxit ne lépp lu ma dal ci biir gendarmerie ñëpp a ko yëgoon ñëpp na pat pataaral ñu ne ko waaw qui sont les auteurs de ces menaces mu ne xaw ma de waaye délégation de renseignement national sax bokkoon na ci ki mu tax dañu ma doon déglu ñu ne ko lu tax nga jël décision démissionné mu ne ba ma toogee bind kenn faalewu ma ma foog ne ñi nekk sama kilifa dañ ma bàyyi bëgg ñu boom ma ndax ci dolli ki nekk sama patron man na ma mon nom est évoqué en haut lieu de la république ma tiit ne ñii dañoo bëgg a yàq sama der sosal ma duudal ma ba pare nag boo sàgg nun ñu jël sama bakkan ñu ne ko waaw étant donné que votre offre de démission a été introduite sous l'emprise de la pression mu ne kon yow da nga sa démission da nga pression la woon ak loolu te affaire actualité am léegi looy xalaat mu ne c'est vrai bu ma waxtaan ak ñenn ñi parce que xamul tax mu wax loolu bañ ko tëjee kaso génn ko dafa am dafa waxtaan ak Jean Baptiste ci nag yooyu mu ne bu ma waxtaan ak ñenn ñi peut-être du demee nii su ma demoon ba koy def dinaa dem waaye toll toll naa ci diggante boo xam ne diggante boo xam ne ñu rey sama bakkan rek rey ma la nit ñëpp gisoon moo tax pour ma jël sama kaaraange ma def li ma def ne damay démissionner ñu ne ko vous offrez votre démission alors que vous avez signé un engagement décennal avec l'État du Sénégal ne ko da signé engagement de dix ans mu ne leen fàttalikuwuma ba may dugg ñu jox ma engagement boobu de ñu avez-vous mesuré de façon lucide les conséquences familiales sociales de votre démission ñu est-ce que xam nga li muy jur démission sa njaboot mu effectivement j'ai pensé c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de maintenir mon offre de démission car xaba ah metti na nam waye jàpp naa ak li xew yop dina jafé lool man ma nekkaat ci gendarmerie normalement di liggéey ni mu waré dina nam waye jàpp naa ak li xew yop dina jafé lool man ma ci gendarmerie normalement di liggéey ni mu waré ca booba la tej audition 18h36 minutes mu signé Abdou Mbengue ñew Abdou mbeng Abdou Mbengue mom li ci doy war nañu interroger foog rek ma ma ñamal leen ci li ci gën a am solo laaj nañ ko na ko bañ ko laajee li mu xalaat ci capitaine Touré mu ne c'est un bon mooy wax da ay termam laa yem lu mu xalaat ci capitaine Touré mu ne c'est un bon officier je loue son dévouement sa loyauté ça promptitude à exécuter les ordres tels que je lui donne Moi, wax je fais partie de ceux qui pensent qu'il a perdu la tête même si lui soutient un dafa jàpp na capitaine Touré de dof waaye officier bu xarañ la bu dégg ndigal bu ñemee liggéey ñemee def lim def ñu ko waaw Abdou selon vous quelle est la personne qui a divulgué le PV sur les réseaux sociaux Abdou je ne peux être formel en disant que c'est telle personne mais ce dont je suis sûr Abdou ni le capitaine Touré ni aucun autre militaire de la section de recherche ne peut être à l'origine de la fuite pour la simple et bonne raison que je suis le seul à détenir l'archive du PV en numérique et en version papier xanaa ñi leen le capitaine Touré war ngeen noppi war ngeen wax nañ ko patron nena, li ko wóor ba wóor ko Moi, capitaine Touré du mom mo génne PV bi du ben élément ci section de recherche mo génne PV bi ndax PV bi génn PV bi génn moom kese dong rek moo version numérique bi ak version papier bi ci bureau est-ce que le document qui a qui a fuité est identique à celui que vous avez transmis au parquet ñu ne ko PV bi nga jox parquet est-ce que méngoo PV <laughs> PV bi génn ci réseaux sociaux yi déglu leen bu baax sama tur a ngi ñëw moom commandant Abdou Mbengue xam nga nit ñi dañuy wax man a pat oui Pape Alé ay la joxe Pape Alé lii di wax ba ñàkk xamam pat laa leen di may je suis au balcon je bois mon café tranquille commandant Abdou Mbengue tontu enquêteurs yi na leen le document que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux et qui a été exhibé par le journaliste Pape Alignan est effectivement conforme au PV original. le document que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux et qui a été exhibé par le journaliste Pape Alé est effectivement conforme au PV original maa njëkk a liir PV yi wax naa la man sax loolu soxlawu ma soxlawu ma toog liir ko le 5 février xaw ma commandant Abdou Mbengue na enquêteurs yi PV bi ma gis muy circuler ci réseaux sociaux yi te journaliste bii di Pape Alé Niang génne ko fesel ko mooy PV bu baax bi mooy PV bu original bi quelle est votre réponse sur les deux PV établis sur l'affaire Adjissar Ousmane Sonko et Portalem avez-vous modifié le PV Moune ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que ni le capitaine Touré, ni aucun militaire de la section de recherche autre que moi n'est responsable d'une quelconque procédure transmise aux autorités. La façon dont on a toujours travaillé à la section de recherche et lorsque je confie l'enquête à un officier de police judiciaire, ce dernier me présente les résultats et soumet le PV à ma lecture. Je ne suis donc nullement tenu de transmettre ce que l'officier de police judiciaire me présente. En tant qu'animateur de l'équipe et le seul chef, je suis libre d'apporter les modifications nécessaires y ay modification la ci indi nee na bu en tant que patron bi mom day jël lu ko je m'inscris en faux contre ces allégations selon lesquelles un PV a été transmis au parquet retourné à la secteur pour correction Nena y du deug amul PV bu ko modifié pour être clair il n'y a jamais eu de PV il n'y a qu'un seul PV qui a été transmis qui a fait l'objet de quelques remarques de la part du procureur de la République et directeur de police judiciaire lesquelles remarques dont le capitaine Touré n'est pas forcément au courant ci teunk y na ñaari PV amul ben PV mo am waye nangu a PV bi am bañ ko joxe procureur procureur def na ci ay remarque am ñu delo ko ko mu def ci remarque yi procureur bëgg wat ko procureur Ce n'est pas un deuxième PV, mais bel et bien le même PV qui a pris en compte les remarques du procureur. waxuñu ñaari PV dafa am de dañ ne PV bi ñu la jox ko jox le huit delloo ko procureur procureur dafa delloo même PV bi même PV bi mu ne leen sant leen ci ne leen dindi leen ma lii dindi leen lii même PV boobu ngeen dindi ci lii dindi ci lii loolu mooy modification ak remarque yu procureur ngeen delloowaat ko PV bi du ñaari PV benn PV la mais benn PV boobu dafa dem le huit dellu si waat ñu dindi ci li ci procureur santaane ñu dindi ci delloowaat ko loolu la ñu wax voilà léegi capitaine Diop waaw ñu laaj ko ñu ne ko moom de mu mim de le capitaine Touré a fait des révélations notamment sur son écoute sa facture par les éléments de la direction nationale de moom de ñu laaj ko ne ko laaj ko mu tontu ne je ne suis pas je ne suis pas au courant de ce qui avance ñu ne ko pouvez-vous confirmer mon de mu ne moom yëgul tinu la wax de commandant Mbengue mais xam nga lañ woon capitaine Touré wax comment commandant Mbengue ne yëgul tinu léegi après nañ dem ci El Hadj Diouf pouvez-vous confirmer que médecin est venu à la section de recherche pour voir le capitaine Touré est-ce que mën ngaa dëggal ne médecin ñëw na pour pour le capitaine Touré le médecin chef de la gendarmerie est venu d'initiative à la pour le rencontrer. J'étais absent, c'est mon secrétaire qui m'en a parlé. Quand le capitaine Touré a rejoint l'unité à personnel, j'ai rendu compte au médecin à son retour. Mon dit deug la médecin en fait fa affaire fait mom interview Et là, Elage Diouf moy benen capitaine euh, capitaine bi suis moy second bi sax top ci quel rôle avez-vous joué lors de l'enquête je pense le 3 février que le capitaine Omar Touré est venu dans mon bureau pour me faire part d'une affaire présumée viol impliquant le député Ousmane Sonko. Il a par ailleurs précisé que le commandant, chef de section de la lui a demandé de n'en parler à personne. Toutefois, le capitaine Touré m'a demandé de l'assister dans la procédure car il s'agit d'une affaire sensible. Pour respecter sa volonté du chef, j'ai choisi de ne pas m'afficher. Ainsi, j'ai proposé au capitaine Touré de me faire signer à chaque fois qu'il termine une audition. Voilà. Mon wow, capitaine Touré, moi, comme je lire de façon sensible bëgg naa nag comme yaa ma mag ëpp ma ci xel ci wàllu enquête fu ma ci toll ma ñëw de laa mën a ko nan ko doxalee mu ne partie réflexion des faits bi nga xam ne dañ ko dindi ci PV bi man bind ñu ne ko avez-vous pris connaissance à l'instar des autres citoyens du procès verbal qui a fuité sur les réseaux sociaux mu ne waaw j'ai appris la fuite du procès verbal comme tout le monde mais je ne l'ai jamais détenu physiquement. Mais comment kon xam nga ñu nañ capitaine Touré moko ko moko moo ko génneloo ki koy patron neena ken kenn yorutoon PV bi man du capitaine Touré du commandant euh, du capitaine Diouk man kessa dong mako yoron bit secteur section réserve électrique version te dak ken fuiteloo ko ci ñun léegi le capitaine Touré s'est-il confié à avoir proposé souci sécuritaire mu oui il m'en a parlé ñu est-ce que capitaine Touré wax na la ci tiitaangeem jaxarem ci walu karangem mu ne waaw wax na ma ko ñu ka enquêteur dina ko le capitaine Touré soutient que le chef de la section de recherche lui a dit en votre présence de faire attention car son nom est cité en haut lieu de la République. Qu'en dites-vous mu je confirme les propos du capitaine Touré capitaine Touré daf na wax na ko ci kanam mu ne li capitaine Touré wax dëgg la nous êtes-vous au courant d'une surveillance discrète au salon suite beauté par certains éléments de la section quelques jours avant le dépôt de la plainte par mademoiselle Agissa Nous est-ce que vous avez salon suite beauté amoon na ñu ko doon surveiller Non. Hein? a la ci ci suite beauté mu ne waaw loolu bruit boobu ko ci fi mu ne Mon non je n'étais pas au courant ce n'est qu'après l'enquête que j'ai entendu des rumeurs faisant état de cette surveillance foofu la jeexee maréchal de logis chef Khadim Diaw Rijal mom dañ ko wo parce que mom lañ moom dañ ko laaj connaissez-vous le salon euh, le salon suite Beauté mon je connais ce salon de nom à travers les médias vous n'y êtes jamais allé mon ne non na pat jàpp sa léegi nag loolu yëpp ba mu amé enquêteur yi lan lañ def conclusion pour ma dire man la togn tooñ capitaine conclusion enquêteur. enquêteur dans l'enquête effectuée ressorti que le capitaine Touré s'est affranchi des obligations qui pèsent son statut de militaire membre des forces armées en posant ses actes le capitaine Touré a commis des fautes au point de vue disciplinaire ñu ne nangul nañ capitaine Touré ne dafa def ay fautes en tant que militaire am na loo xam ne waroon cependant si certains propos tenus par le capitaine Touré au cours de l'enquête souffrent de preuves matérielles mu ne bu nekkee ne am yi capitaine Touré wax yoo xam ne mu ñoo indi ay preuve matérielle mooy surveillance discrète écoute téléphonique am na loo xam ne tamit lu am la lu wér la mooy kaaraangeem mi ngi woon ci xottu gerte de sa crainte pour sa sécurité te loolu tamit ba mu amee l'absence d'assistance formel et effective de sa hiérarchie amul kenn ku nekk ci biir gendarmerie ku ko indil wallu ba nga xam ne bakkanam mi ci xottu gerte ñu bëgg koo boom mu ne tamit lu wér ba wér enquêteurs yi moo ne procès verbal bi modifié nañ ko ndax génne nañ ci ñaari paragraphe te ñaari paragraphe yiñ ci génne yépp le retranchement de deux paragraphes sur la déclaration de la victime présumée di génne nañ ci ñaari paragraphe te ñaari modification yooyu yépp ñu dindi c'était favorable à monsieur Ousmane Sonko enquêteur gendarmerie ñoo ko wax waaye du loolu de ba ñu paré ci loolu ba paré lii dafa am leneen lu xew ngeen may ma rek dafa lu xew ñu enquête déglu leen ma rek léegi ñu jeex ñu paré enquête ñoom de Crespin Sambou Omar Diouf jébbal Jean Baptiste may leen ma rek dafa am loo xam ne foog ma génn ko ci ordinateur bi lim tur yi parce que loolu dafa am solo léegi ñooñu ba ñu pare jox Jean Baptiste Tine dafa am juróomi juróomi euh, officier yu jël enquête bi toog réunion pour délibérer est-ce que dañoo war a radier am déet yenn sanction lañ war a teg ci kii nga xam ne mooy capitaine Touré yan sanction lañ ci war a teg dama leen di liiral turu gars yi laa leen laa leen ngeen may ma rek gars yi euh, léegi mu jeex jeex na ba pare may leen ma rek may leen ma rek jeex na ba pare jeex na ba pare dama leen di ñëwal loolu ñëwal leen ci lettre bi Jean ci tin bind ministre des forces armées ak ba mu demee toog ci président de la république tamit la mu ko wax may leen ma rek sama gars yi léegi ma indil leen turu gars yi turu yi rek laa leen bëgg indil parce que dama ko noté woon fenn ci ordinateur bi nga xam ne du génn kër gi du génn kër gi te dama ko fi bàyyi parce que xam nga boo génnee mën nañ dajj sa saak sax wala sa oto sax génne ko sama bureau sax amul ordinateur ma lépp fi laa koy bàyyi na pat toog xam naa ñu ko séq loo wax xam nga loo wax ñu mim wax naa fi PV bi ñu ne waaye Pape Alé foo PV commandant Abdou Mbeng ne PV bi Pape Alé wax mooy bu authentique bi moo ko wax de enquêteur yi moo ko wax enquêteur yi moo ko wax enquêteurs yi na leen PV bi génn ci réseau PV bi ma gis journaliste Pape Alé liir mooy PV authentique bi waa ña daan wax ne du dëgg ña daan wax ne capitaine Touré moo génne PV bi commandant Abdou Mbeng ne capitaine Touré génnewul benn PV ku wax loolu waxoo dëgg ndax PV bi version électronique bi ak version physique bi papier bi yépp maa ko yoroon xanaa wax day jeex waaye xaw na sori nag gars yi may leen ma rek xam nga damaa bëgg a jeexal mbir mi pare ci quoi nekk ci leen parce que maa ngi yor ay dossiers yu compliqué yoo xam ne foog daal ñu càmbar ko waaw loolu donc moo taxoon bëgguma woon bu dama bëgg rek mbiru capitaine Touré parce que dañ ko tooñ billahi dañ ko tooñ dañ ko tooñ dañ ko tooñ dañ ko tooñ dañ ko togn dañ ko togn dañ ko togn compte rendem ñang ko jox euh dañ ko bind abdou mbeng yobbu ko commandement territorial secrétariat moussa fall yegul ci jean baptiste tine jean baptiste tine ci bopam daf demande d'explication moussa fall yep mi ngi ci mais yoyu mom jaruma ci dik parce que dinañ ko gëna gëna gëna gëna gëna leral buñ ci tollo fa jotagul waaw ah, voilà donc wa léegi mu jege ma limal len ñi nga xamné ne bañu paré nak ño def réunion bañu paré ño def réunion tok wax lañ wara wax yépp def réunion bi euh ah, juromi officier la may len ma de ma ngi jéggalu nak parce que man xam man sama affaire day wasa wasa duma ko wër mais dama ko soralé won dama non damay lire enquête bi rek yam fa mais day bax ma tuddu turu ñi nga xam ne ñoo nekkoon def réunion ba lii jeexee ba lii jeexee waaw ba lii jeexee dañoo jël affaire bi jox ko ay officier pour ñu statuer ban xeetu sanction lañ war a jox euh, kii nga xam ne mooy capitaine Touré voilà loolu nag bañ ko ñoom ba ñu réunion réunion ba leen di génn lan moo fa voilà les voilà cinq officiers désignés par arrêté ministériel le colonel Abdoulaye Diagne le colonel Cheikh Diouf le commandant Alexandre Djuma John le commandant Tidjan Sow le capitaine Abdou Sek, nous siégé ci Wakam ma le colonel Abdoulaye Diagne le lieutenant-colonel Cheikh Diouf, le commandant Alexandre Djouman John, le commandant Tijan Sow, le capitaine Abdou Aziz Sek, nous avons siégé. Fii ci Wakam. Nous siégé ci Wakam. Ba ñu siégé. Ñu jël décision. nous avons ñu décision dañoo voté à l'unanimité ñoom ñëpp de colonel Abdoulaye Diagne colonel euh, lieutenant colonel Cheikh Diouf commandant Alexandre Diouma Ndion le commandant Tidiane Sow capitaine Abdou Aziz Seck dañoo siégé Wakam fii ci caserne bu école des officiers de la gendarmerie ñu voté à l'unanimité ne capitaine Touré bu ko kenn radier bu ko kenn radier loolu mooy décision bu génn ba décision bi génnee may leen ma rek parce que ay wax dafay leer ba décision bi génnee le 6 juin 2021 le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine au commandant de la gendarmerie nationale mi ngi ni doo leen ko mën a gis parce que weex ma liiral leen ko Wow 864 POHCEMRH Dakar le 6 juin 2021 le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire ministre des forces armées tradition devant un conseil d'enquête d'un officier subalterne loi loi 62 87 du 18 mai 1962 modifié décret 89 12 68 voilà dossier de tradition devant un conseil d'état j'ai l'honneur de vous transmettre par, pour décision le dossier de tradition devant un conseil d'enquête concernant le capitaine Omar Touré, matricule OA en service à la Légion de la gendarmerie d'intervention. L'intéressé a été puni de 60 jours d'arrêt de rigueur assorti d'une tradition devant un conseil, traduction devant un conseil d'enquête en vue de sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale pour faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire. Ainsi, le conseil d'enquête s'est réuni le 14 juin 2021 et a émis à la majorité des voix une réponse négative pour la radiation de cet officier de la cadre de la gendarmerie nationale. Lolo, le Jean-Baptiste de ministre des forces armées Neko. ah Qui dit capitaine Oumar Touré matricule OA